c'est la référence. juróom-ñeenti waxtu ci suba nak jotna ci commune bu euh, Mbadakhoune mbokk yi dal leen ak ci tu xabar yi ci kàllaamay ko ci giatal bu ngeen lo rek ma li ci gëna li ci gëna fess nak bokku na ci waay Samba Boy nak jaar nañu l'école primaire Touba ñu laneem waye ndax nak bureau directrice ba lañu dajji raxas ko ba mu set dañ ca dégg Cheikh Ababakar Dieng njaboot yu jaxlé modu modu yu ndax nak bëgg mu ak mu réew mi tàmbalee sooxe lii lépp daanu ko waxtaanee ci bile jotaayu xabaar doyul na rek ñaax nañu askan wi waaye tamit nag ñuqi nañu ca seen ko gafaga jëndee ko nag ay jumtukaay ak i dund jox ko daara yi ak néew di doole yi moom président Serigne Mboup ak Ousmane Noël Dieng ci jamono ji nga xamee ne nag Serigne yi ci Medina Baye ñi ngay woote ndimbal ànd ak di wax ne nag tey jii daaju dakkal lépp luy njàng ak ak njàngale daa ngeen leen dégg ci ndimbalal Bara Diop bu li lépp yembee mbokk yi dañ ca teg xabaar yi biti réew ak Cheikh Tidiane Sarr xabaar yi tàggat yaram ak Serigne a Kane li yéene kaay yi xëye ji leen mbiram Alaaji Oumar Cissé lay doon kon mbokk yi lii moo nara gën a fës bu bàkk bi daanoo rek ñu yàtt Le journal Ngoné Ndiaye Reine moo nekk ci waxukaay gi fego ci li Libaas Mbay kaddu gi di àddoo fii ci studio Alioune Momar Lo asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci bile jotaayu xabaar dañu koy dooree nag ak na ma leen ko junjee l' école primaire Touba Niolanem fa mu nekkee nag ñàkkum kaaraange dëgg moo fa am ba tax na rek waaye Samba boy yi dem fa def fa lu leen neex njiit la nag jamono ji ay gëtam rek la dese ngir xool Cheikh Ababacar Dieng. commune Mbadakhoune la bokk. école primaire Touba Ñolaaneem te nekk ci biir Kaolack bureau directeur bi la ñu dajji def fi ay yàq-yàq yu bëri jël fi it ay mbir ci guddi gi lañ fi ñëw njiit la na moom daa xëy rek gis tooxi doona bi Awa Ndiaye mooy directrice bi la école. man daal vers ay sept heures et demi huit heures suma bii dëkk fii en face l' école moom moo doon jaar di marché gis bunt bi ne dañ ko défoncé waaw léegi bi mu ma woowee tout de suite vers ay sept heures et demi laa daw école bi bu ma ñëwee ma constaté ma gis ne nañ bunt bi jël nañ suma ordinateur ak unité centrale bi nekkoon ci biir jël nañ suma livre yu bees yi nekkoon ci suma biir armoire bi yëpp jël nañ fi une petite somme d' argent bu ñu fi bàyyi woon. ab école primaire la boo xam ne dafa yaatu bëri looy ay classe yoo xam ne mbaar la mu ngi nekkee ci gannaaw sous préfecture bu Mbadakhoune soriwul dara ak usine gaz bi boo xamul sax daanaka tem nga ne ci commune Kaolack la bokk ñàkk kaaraange gi nag foo ko natt rek weesu na ko directrice bi ci boppam moo ko xamle Awa bi moom amul benn kaaraange ndaxte déjà amuñu amuñu gardien te machine yi fi nekk bari woon na parce que am nañ fi ñetti machine ak ay imprimante amuñu gardien clôture bi gis nga ko depuis novembre lañ ko commencé ñu arrêté ko ça fait plus de deux mois construction bi àggul ñu ngi ko bàyyi noonu xamuñu lan moo tax ba pare ñun milieu bi ñu nekk ci boppam moo xaw a ñàkk sécurité. armoire bi nekk ci bureau bi dañu ko caxat caxate fii lañ jëlee livre yu bëri yu bees tàq yóbbu ko. exactement wax dëgg yàlla mënu ma xam ñaata livre yi mente livre yi bari nañ lool te yu bees tàq la yoo xam ne kenn laalagu ko. xamee ne école yi dañu laa joxo feet goo xam ne ñu ko dañoo xëy rek tëj moo tax bandi yi bett leen ba def leen lu ñu mel lii la directrice bi xam xamle. waaw loolu moo ko waral ndaxte bu doon samedi dimanche rek de duñ ko jël si. ñoom bandi yi nag bi ñu attaqué file bi ñuy dem fukki junni juróom rek ci kopparu CFA lañ fi fekkoon moom lañ yóbbu. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. xët ma ñuy njëkk ibbi nag dañu koy jagleel tolluwaayu mbas mi ci réew mi fukki nit ak benn nag ñoo dolleeku ci li mu ñu amee jàngoro ji di coronavirus bu ñu sukkandikoo ci bataaxalu institut Pasteur ba mu jébbal ministère de la santé mu yeggee ko askan wi démb démb docteur Aloyse Waly Diouf directeur de cabinet bu jëwriñ bi ñu denk wàllum pàcc meek paju mi ay kàddoom ak Arona Niang maa ngi leen di leeralal communiqué bi nga xam ne mooy communiqué d'hier 22 ministère de la santé et de l'action sociale d'autres résultat et test Si 85 tests yi ñu def sont ñoo positif manam fuk ak ben. ci fuk ak ben yi juróom ben yi ay cas importé yi ay cas contact service yi ñu ngi leen doon suivre bu ñu Sénégal am na 67 cas yoo xam ne déclaré nañ leen positif ci 67 cas yooyu juróom tane nañ ci ba génn 62 ñoo nekk ci structure hospitalière yi ñu leen di faj ba léegi ñu nekk ci structure hospitalière yi muy Touba ak Dakar seen wérgu yaram mu ngi jëm kanam ministre bi yore war wérgu yaram ak action sociale mu ngi félicité di encourager personnel de santé bi nga xam ne moo nekk ci première ligne ci xeex Covid 19 mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu continuer di wéyal topp tegtal yi nga xam ne jox nañ leen ko ci wàllum prévention individuelle individuelle ak docteur Aloïse Wali Diouf gannaaw Nak soñu askan wi folker docteur ka ñu centre des opérations d'urgence sanitaire Dikad na rek ci tolluwaayu woppu geek docteur Abdoulaye Boussouk, ak il a euh, mbirum épidémie bi actuellement comme ni ko monsieur le directeur de cabinet waxee am nañ juróom benn ak juróom-ñaar ñoo xamné ne am nañ ko juróom yi nañu am nañ benn ak ñaar yo xamné ñi ñu ngi suñu centre de traitement yi actuellement ñi ngi leen di fajee ci hôpital Fann ñi ngi leen di fajee ci Touba ñi ngi leen di fajee ci extension ou hôpital euh, Diamniadio ñi ngi leen di fajee également ci hôpital régional de Ziguinchor donc ñi ngi vraiment di góorgóorlu pour jéem au niveau des régions ci région yi ñu am capacité pour jël en charge maladie li ñu mën wax aussi mooy ñi nga xam ne dañu feebar dañuy seet ñi nga xam ne la ñu taxalool te am nañ lu ëpp junni ñoo xam ne ñu ngi leen ñoo xam ne génn nañ su suñu suivi xam ne la ñu taxaloon ak ñeenti xam ne moom la a am ñooñu gis nañ ni 14 jours yi bi mu jàllee kenn amu ci feebar bi donc ñu si sant yàlla ci loolu maintenant am nañ lu ëpp junni loo xam ne ñu ngi leen di topp pour xool et normalement fii ak fukki fan ak ñeent dañu mën a xam est-ce que dinañu am feebar wala duñu ko am mais li ci am mooy waruñu am jaaxle suñu am amee cas yu bees parce que fi mu nekk nii contact yooyu nga xam ne dañu nekk contact au risque ñoo xam ne mun nañ am feebar bi aussi li am ci mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ci tëj frontières yi pour ñu gis li nga xam ne moom lay indi il faut ñu am ay fan donc dina am au moins ñaari semaine ar yu bees yoo xam ne si nañu mun a gis effet bi nga xam ne moom la am parce que ñu dugg déjà ci dëkk bi ñooñu am nañ fukki fan ak ñeent pour seen feebar mën a génn donc bu jàppee ni bi ñu ko tëjee barki démb la donc il faut ñu li ci am solo mooy ministre de la santé joxe tout cas service de santé yi personnel de santé bi yëpp ñu ngi taxaw ñu ngi jéem a aussi capacité pour prise en charge pour mën leen faj donc pour que région yi bu nekk en tout cas ñu mën a am capacité pour mun faj maladie donc loolu moom ñu ngi ci jublu bu baax a donc ñu jàpp vraiment que jàngoro bi mi ngi ci dëkk bi loolu il faut ñu nangu ko ñu xam ko ba ku nekk si sa wàll nga mën a jël say matuwaay parce que du ay ñun pas que docteur yi ñoo koy faj ci ku nekk ak sa comportement ak topp ndigal yi ñu joxe éviter regroupement yi loolu moo ñu mën a may ba nga xam ne dinañu mën a xeex jàngoro bi bu génn si dëkk bi eh, ñu bañ a am ay cas yoo xam ne dina garaaw parce que ñu ngi sant yàlla ba léegi amuñu ko mais bu ñu taxawul trop ba cas yi nar a bëri mun nañ ko am te loolu dina indi jafe-jafe donc ñu topp ndigal yi nga xam ne moom la joxe ci wàllu cet ak wàllu ni ñu war a toppatee suñu bopp xelal aussi suñu ay njaboot tee leen ci période yi ba nga xam ne feebar bi dina mën a taxaw. docteur Abdoulaye Bousso ñàkk a topp nag digle digle yooyu am na lu mu jur ca diwaanu Vélingara ndax nag am ci ay ba ñu jóge woon ca Thiès ci jamono ji nga xamee ne nag boobaak léegi diwaanu Wélingara amagul woon benn ci ay cas Babacar Diouf ak i leeral département bu Vélingara nag amul benn cas positif bu coronavirus waaye donte loolu yëpp nag di ci sanitaire bu Vélingara ñoom nag taxul ñu ngi fàggandiku di def lépp lu ñu mën ngir Covid 19 bi mu bañ a law ci noonu sax la ñu jël ñeenti kër yoo xamante ne nekk fële ci quartier Marewe dañu leen def en quarantaine dañu leen làq dañu leen ber ci samedi jii li waral loolu nag koo xamante ne nag cees la dëkk dafa bawoo ko kooku agent de santé la ñëw fii ci Vélingara ngir teewe benn céet ci noonu ba mu ñibbee wax na mu def test la am coronavirus loolu moo tax nag njiit yi yore lépp la aju ci wérgu yaram fii ci département Vélingara ñu daal di nag jël ñëpp ñi nga xamante ne jokkoo woon nañu wala laale woon nañu ak kooku ñu làq leen ber leen di leen surveiller kooku nag nga xamante ne agent de santé boobu sax gannaaw fukki fan ak ñett ba fukki fan ak juróom ci weeru mars bi la fi nekkoon ba mu ñibbee nag lañ ko teste mu daal di am nag feebar boobu ñuy wax coronavirus ki doon jokk yéen di seen naataak Babacar Diouf Vélingara Alfayda FM. jaajëfal Diouf dañuy bàyyi nag wele ngara dem ca dëkk bu sell bi di tubaa gannaaw nag l'hôpital militaire ba ñu fa taxawal ajuma jile weesu jëwrin gi nu gàll wàllum nag l'armée bi amal na fa rek ay tànk yi nemmeeku daal di rafetlu nag bu baax a baax liggéey bi nga xamee ni rek ay ndawam ya def nañu ko fa Sidiki Kaba àdduna ci micro Mamadou Moustapha mbay liñ fi gis suñu xel dal na dañ fi ñëw ci tuuru président de la république Macky Sall ànd ak le chef d'état-major général des armées le général de corps aérien Biram Diop gis ngeen délégation bu takku la dañu bëgg a féliciter ñi nga xam ne tabax ci bu installé hôpital de campagne bi ci ñetti fan lañ ko waroon def mais ak seen expertise ci ñaari fan lañ ko def te hôpital bi hôpital de dernière génération la ndax lu ñuy fekk ci hôpital de niveau 2. loolu yëpp mën nañ ko fi fekk de féliciter personnel ñi fi nek lu toll 80 personnes de di féliciter tamit les médecins de district ndax liguey bi ñuy def man nañ wax synergie la ndax ñu ngi liguey fi pour que le centre de Daru Marnam mu mën recevoir ñi nga xam ne jot nañ am feebar bu bon bi nga xam ne Covid-19 di jaajëfal ñi fi nekk di la wax ne dañ ci am satisfaction bu rëy la amagul nag benn satisfaction mooy fexe rek ba ndongo daara yi des ca seen ba bërëb waaye nag fii ci Medina Baye moom ki kuréel gi nga xamee ne rek nag moo lënkale sëriñ daara yi ñoom nag jël nañu dogalu dakkal tey jii lépp loo xamante ne rek ma nga soxal wàllum njàng ak ak njàngale seeti na leen moom Bara Diop kàddu yu sell yooyu mu ngi tukkee ci ay ndongo yu toog ci seen ruum ngir jàng téere borom bu sell bi waaye daa mel ne lu nu mel ci Medina Baay bi la dina jël bërub diir ne kuréel gi lëkkale jàngalekatu alxuraan yi nekk file ci diwaanu Medina Baay gannaaw gis ak seen njiit Cheikh Babacar Niass ak xalifa bu tedd bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass feebar bi wàlle lëmbee àdduna wërngal këpp jël nañ ndogalu dakkal njàng meeg njàngale mi dalee ko tey jile taxawu état li nga xam ne bëgg na ko ñi defal ko ndax li mu bëgg rek moom mooy jàmmi réew mi ku wax daara wax dëgg yàlla da wax dajaloo état li mu joxe mooy nañ fexe ñu toog suñ kër yi kon sëriñ daara yi eh, nañ yebal xale yi nga xamante ni dañoo dëkk si seen kër yi di jàng di wàcc yi ñi bàyyi leen ñi dem ndogal gi nag nii lay tëddee waaye du ñàkk yenn ci ay nongo yoo xam ne ci seen kër yi lañu féete doom lañ ci ñoom tax ñi nga xam ne dañoo internet wu nag ñooñu mën nee na toog si biir kër gi ndax njaboot lañ si borom kër gi rek loolu ñun bu fekkee état waxu loolu si suñ gis suñ digali président moo ñi internet wu nañ leen bàyyi ñi toog si kër gi ndax si njaboot gi lañ bokk njabooti borom kër gi lañ ànd ak lii lépp yàgg nañu dégg ci rajo yi ne état bu Sénégal mi ngi dimbale daara yi waaye ñoom daara yi nekk fii la ci Medina Baye lu nu mel dégg képp la ci am ñooñu jàppale ñu parce que dund bi dafa métti ñoom borom kër gi mooy joxe dépasse dafay yokk dépasse ndox mi raxasu yu ñu wax ndimbal yi nga xamante ni wax naa ko léegi ñu ngi koy dégg waaye ba léegi nii wax dëgg yàlla mbir na moom gisaguñ way defal yàlla yi nga xamante ni ñu ngi defal daara te duñ état la wax dëgg yàlla ñu ngi koy déglu euh, ñun waa Medina Baye waxoon nañ ko jamiya bi dañ koo sos rek pour yombal liggéey bu bare bëri kuy dimbale daara Medina war ngaa xam fooy jaar du teel li lépp ngir sàmmanteeg li autorités yi daal di bëgg te ñoom ñu leen yaree bëgguñu jalgati benn yoon yoon tax nañu daal di jël ndogal lile waaye nag aajo woon nañu ndimbal ne jumtuwaay yi ñu yore ngir jàmmaarloog feebar bi lu néew la bokk gam-gam leeg seen kàttan kuréel gi lëkkale sëñ daara yi nekk ci diwaanu Medina Baye bi yépp amaloon nañu ndaje mu yaa nëgani démb ci daara Baye jël ndogal lii la gannaaw buñ ci diisoo xalifa bi cëral la bu baax a baax Bara Diop doomu daara la ba tax na naka xelam ca daara la njëkk dem moom président Serigne Mboup ci turu nag chambre de commerce bu Kaolack juróomi million la dugal ci xeex beek ci daara yi la ca des ca l'hôpital yi général élu bu chambre de commerce bu Kaolack moo ko wutu woon ca kanamu Gor Nord mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. waaw dañu ñëwoon fii tey comme ni ngeen ko xamee rek teewal fi président Serigne Mboup ci ndimbal bi nga xam ne joxe na ko pour ñu xeex jangoro bi nga xamne mo dugg ci rew mi dugg ci aduna bi di ñaan suñu borom jangoro ji genn ci aduna bi mom nak ci taxawayam mo taxon nak mu def barkelom lo xamne ne da koo tàmbali rek muy ben envol bu 5 millions ñu jënd ci nak ay matériel comme niko gouverneur waxee won muy ay ceeb ay gel ak ay matériel yo xamne matériel médical la yo xamne ñom ñoom ñoo ñu wax ñu jënd ko léegi envol bu yëpp buñ ko bolé 5 millions la mi ngi masawu nag waa Kaolack yëpp di massaw wa Sénégal yëpp tay ñaan tamit yalla fa jangoro bobu bu baax baax fu a jëm ndimbal bi dafa jëm ci population bi nga xam ne dañ leen a war a aar jàppale leen surtout nga xam ne mooy ndongo daara yi ndax moom doomu daara la te fi ñu toll nii fi ñu jëm mooy kenn ku nekk toog ca sa bërëb ndax yar bi nga xam ne yar nañ ko ndongal daara yi moo tax mu indi ndimbalam boo xam ne ceeb la nga xam ne dina fekk borom daara yi ci seen daara ndax ñu mën a téye xale yi ndax ñu mën a fagaru ci jàngoro ji bu baax a baax yàlla musal ñu ci bu baax a baax ginnaaw ndimbali ndax yeneen ci ñaaxe bi tamit moom ñu ngi ci ndax kenn ku nekk danga ko commencé ci sa entreprise ak sa waa kër ak ñi nga dëkkal kenn ku nekk euh, ñi ngi def luñ man ndax euh, ñi am nga xam ne mën nañ ciy jokkoo yëpp ñu ngi ciy sensibiliser doomu aadama yi bu baax a baax di ci jàpp marché yeeg yëpp vraiment ñi ngi taxaw nit ñi moom adhéré nañ ci ñi ngi respecté bu baax li docteur yi wax mu nekkoon nag ay kàddu yu secrétaire élu bu chambre de commerce bu euh, Kaolack gouverneur nag ma ñu jox mbir ma ne du yàgg dara nag daañ ko jotal daara yi ngir nag mën faa téye ndongo yi ak it li war a dem ci l'hôpital yi lu ko jiitu nag mu rafetlu ak ji Alioune Badara Mbengue ak Cheikh Ababacar Dieng waaw wax dëgg yàlla gërëm ko sant ko bu baax a baax a baax a baax ci geste bi mu def di wane rek ne moom lu soxal askan wi soxal na ko lay geste bii di tekki di ko gërëm bu baax di ko sant bu baax lii nag mu def muy ndimbal lu am solo naa ne bu sobe yàlla dañ fexe ba poste de santé yi fi nekk yépp ku ci nekk am ci sa wàll même su fekkee ne weesu na poste de santé yi ne Kaolack ñu jéem a département yi aussi yenn poste de santé ñu leen parce matériel bu am solo la matériel pour raxas ay loxo la pour nettoyer désinfecter ak gel alcoolique loolu am solo trop li ci tegu aussi

d'académie ñu jëm leen repérer identifier seen i maître coranique fan lañ ne recenser leen li ñu am ak néew commencé leen ko jox pour ñu góorgóorlu ñu réduire déplacement yi réduction déplacement yi dafa am solo. réduction déplacement yi dafa am solo di wax ne nag benn million rek moo tegoogum ca loxol Gornor la des nag mon président Serigne Boub moo koy jëndee ceeb daal di koy yóbbu ci daara yi mouvement MJKDFS nag lëngoon nañu rek takku taxaw temm ngir daan jàngoro ji di coronavirus jaaree ko nag ci ñaax askan wi waaye tamit tamit nag jënd ay jumtukaay yuy seetal ak i dund baaxel leen ko Ousmane Noël Dieng seen ko njiit ci micro Cheikh Ababacar Dieng Ousmane Neul, Ousmane Neul, ñëpp la man seen doom tey dama ñëw nak and ak sama mouvement bi de DFS pour sensibiliser les gens pour les faire comprendre que ne la maladie existe parce que ñu bëri xamuñ dañu foog ne affaire kaf la ñu bëri dañu foog ne xam naa ne nit ñi dañu def comédie des fois gis naa ñu jël corona bi dugg ci ay réseaux sociaux di ko def ay comédie Lolu bu yagge nit ñi di leen sàggan ba foog maladie bi amul te fekk né maladie amna té c'est très dangereux coronavirus il faut ñu xam ko virus bu dangereux la Bo xamné mi ngi ñëw ci 2019 lu doy war la ñu ñaan Yalla Yalla ñu ci Yalla musal So gisee ñu ay récemment bi nii yëpp ñu àndandoor parce que luy wàll la rapidement te cet la ñëpp santané mo wara tey ñu ñëw jël ay savon jël lepp ne balaa nga dugg ci kër gi sax di nga raxasoo ak saabu jox la eau de javel bi nga ba paré jox la mouchoir nga mouchewu après nga tok de côté ñu def remise symbolique bi après ku nekk tasaaroo li bëgg wax rek aussi moy respecter aussi décision président bi nga xamné mom la jël ñu respecter aussi recommandation yi parce que c'est très important président def ko ci bànneexu bakkenam président def ko ngir politique way def ko def pour sensibiliser les gens parce que Sénégal jàmm rek fi xaj feebar bi xaju fi donc mo tax ñuy def li yëpp yóbbu ci daara yi ñi nga xamné ñi ñu exposé wu ci mbedd mi peut-être am na ñoo xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw gel des fois cher na masque yi cher na ñu boole ci tamit ay dund nii wala ne aussi ne feebar dafa existé wala ne aussi ni da war a set raxasoog saabu yàlla mu ñu tiim xam ne bu ñuy def duñ xam sax lu def mais ku fi tiim xam ne lii ay millions la bu may def man damay def suñu xol rek ku si nekk daal indi nga sa dërëm am dërëm indi nga ko am juróom indi ko dajale nañ ko daal ba mu sakkan jënd nañ ko mais mënuñ ne la temps la wala temps la waaye daal yàlla xam na ko dañuy des ba tey nag ca googulee mbir leew nañu seen nag ga mu dooree mbir ma askan wa sant nañ ko cant gu amul àpp ànd ak i tamit nag ñaanal ko dooleem gën a yokku bu weesoo nag ñaan coronavirus bi génn ci réew mi seeni kàddu Cheikh Ababacar Dieng moo ko tàttaan c'est un officier des le président Ousmane Lu d'ailleurs pour anticiper un peu am na loo xamante ni waroon nañu arbre bi tey dem nañ fa revêtir ko def ay moquette yoo xamante ne tey jii loolu passage rek la. man maay Père Lamine bu Ousmane Noël Dieng. waaw ah, man xam nga Ousmane moom sama doom la dama koy politique le yéen Farba moom ma booleeg moom ma koy jàppale tout le temps. tey nag moom dañuy ci yonent bi. di ñaan yàlla balaa bi dugg ci àddina bi yàlla teggi ko. parce que balaa moo dugg ci àddina bi. waaw ah, am na yu fi jaar mais bii moom je crois moo gën a dangereux parce que bu ñuy fàttaliku a extrêmement dangereux kon nak bu ci Ousmane li def ndimbal li mënuñu rek lu top ci gannaaw jàppale ko ci. ku gis suñu teewaay bi xam ne monsieur Ousmane Noël Dieng mo woté comme il a l'habitude de le faire donc ku nek xamné né coronavirus dugg na Sénégal waye li mu njëkk xalaat moy damay dugg sama région Kaolack sa fierté comme il a l'habitude de le dire donc ku nek gis na té lim fi indi indi ay mouchoir indi ay eau de javel indi ay lave-mains lépp ngir ar population kaolackoise donc ñu ko ci remercier Lolu nak ci ndigalu président de la République son excellence ak sunu ministre monsieur Diène Farba Sarr donc ñu nekk ci sunu euh, ginnaaw leader muy monsieur Ousmane Noël Dieng gis ngeen détergent yi gis ngeen lépp mu ñëw ne dama koy indil population Kaolack ñëw jagleel ko daara yi ak doomu aadama yi pour aar leen ndax ku ne xam na ne monsieur Ousmane Noël Dieng dafa bëgg waa Kaolack lépp lu mu am rek xalaatam yëpp waa Kaolack comme niñ koy defee nag tey dañoo ay rassemblement defuñ benn rassemblement dañuy fekk daara yi dem ci ñoom ndànk jébbal ne li ñu leen war a jébbal pour ñu mën a aar seen bopp aar seen i yàlla bu baax a baax a baax di wax ne duñu ne guleet ndax Ousmane Noël Dieng ne lii yàgg na ci di dolliwaat di ko ñaanal yàlla lépp loo xamante ni man na ko ren bu ne yàlla man mën lu ko ëpp que lii du mbiru politique Ousmane Noël Dieng deful ngir politique ndax mu ngi ci daara yi mu ngi ci jumaa yi mu ngi ci néew di doole yi tey bu yàlla defee feebar ñëw ci doomu aadama yi mu jóg ne kat dafa ñëw pour jàppale doomu aadama yooyu dañ koy ñaanal yàlla. yéen a ngi xibaar yi ci Alfayda FM 90 kaddu gi di àddoo ba tey fii ci studio Hollywood Momar Lo dañuy ibbi nag ba tey beneen buntu jagleel ko coronavirus bi waaye bi la yoon nag ci wàllum koom ak itamit jafe-jafe moodu moodu yi ca la ñuy addu moodu moodu ya nekkee nag ca États-Unis am nañu njàqare gu rëy jamono ji ndax nag ñu bari ca ñoom waajoon nañu ba noppi ñëwaat ci réew mi waaye daal dañu leen ko gàntal ba tax na nag xalab nañu rek doxinu ak nguur gi Cheikh Tidiane Niass kenn la ca ñoom mi ngi ci téléphone El Hadj Ibrahima maa ngi fii ci New York dama bëgg a wax ak waa réew mi waa Sénégal que dañoo am jaaxle gu rëy démb fii ci New York ndax dañoo nekk ay sénégalais dëkk Sénégal juddoo Sénégal yaroo Sénégal jóge Sénégal dem di daani suñ doole bëgg a dellu Sénégal musiba am ci àdduna si ñu ne Sénégal tëj nañ aéroport yi kenn du yéeg kenn du wàcc xanaa aéroport buñ koy tëjit duñ ko tëjal doomi réew ma ci li ma yaakaar ñun 48 heures ñu ngi laaj delta ba affaire bi amee delta ne jotuñ benn signe bu wax ne roplaan warta ñëw wala warta dem foofu la cuune dale pour ñu dem aéroport delta yónnee ñu message ni ñëw leen ngeen dem bala ngeen a tardé ñu ñëw ba aéroport ba pesé lu mat ñeenti nit juróomi nit ñu ne jot nañ message léegi ne bu benn nit dugg ci avion bi dem Sénégal muy nationalité boo mën a yore rawatina ci bu Sénégal foofu la cuune dale affaire bi am kenn waxu ko air bi ba air bi oo ay nitam ba ñëw ñu door wax ne bu kenn dem ñu ne waaw ñu delloo ñu suñuy bagage ñu ñëw ba ak si kërati encore ñu ñu ñëwaat aéroport bi ñëwee rapport commencé waat delta ne Sénégal yónnee na nee na avion bi moom dana dem waaye bu demee ay américain rek lay indi citoyen américain waaye du indi benn nit bu jógee Sénégal du jëlee fi benn nit yóbbu ko Sénégal ay citoyen américain rek lay indi waaw xanaa ñun doonuñ ay citoyen sénégalais wala ñun doonuñ ay nit avion bi vide la demee kenn dugg ci ñoom wax nañ ko carrément delta deux cent seize mooy numéro wol bi dana dem Sénégal mais vide lay demee ñun ñoo a a jot am nañ droit dellu suñ réew buñ demee suñ réew ñu seet ñu buñ feebaree ñu téye ñu buñ feebarut ñu bàyyi ñu dugg suñ réew waaye dañoo lank ne kenn du fi embarqué ñun nag dañoo bokkul ci nguur gi waaye bu ci waa nguur gi nekkoon danañ leen jël danañ leen yóbbu réew mi nag man li ma gis fi mu ne mooy képp ku bokk système bi boolewuñ la ak ko mën a doon nañ waxante dëgg Amérique ay nit lañ rek buñ mën a jëli seeni citoyen ci avion bu vide ci indi leen te dana del ci waat nag delta nee na dana demaat suba dana demaat gannaaw suba te ay citoyen américain rek lay indi benn sénégalais du ci dugg réew nag su fekkee ne ñi jiite dañoo ëpp xam-xam ñi leen jiite réew mi du dox gouvernement bi nañ seetaat seen bopp xam ne ay nit lañ yilif yilifuñ ay golox réew mi yàlla da ko yëkkati teg ko ci seen loxo waaye teguñ ko ci seen loxo pour ñuy not nit ñi ak di leen bundu xataal problème bii nag bëgg naa nit ñi bàyyi ci seen xel xam ne ñii nit ñi yitteelu leen seen bopp leen yitteel li ñuy wax ci corona bi yëpp seen bopp rek la ñuy waxal waxaluñ citoyen yi de waxaluñ benn citoyen seen bopp la ñuy waxal ndax kuy waxal si citoyen doo wax ne sama citoyen du ñëw sama réew lii daal la gouvernement bi dogal ñu di leen laaj nag ba xam ñun lii mooy yoon wala lii moo taxoon ñu teg leen fi. Cheikh Tidiane Niass mastawu leen bu baax a baax tey wax ne nag njeexintalu coronavirus boobee àddina yëpp la laal ba tàmbalee rogalaat fii ci réew mi ànd ak ni tamit la mu mën a jur ci ay njeexintal bari na ba yegg ci lool koom jàngat na ko mi ngi ci téléphone nu bi yaay. te xam nga affaire bi ci virus bi ci feebar la déparé mais système de propagation maanaam ni muy wàllaatee dafa nekk lu gaaw ba pare day rayé ba pare ñu gis ne àdduna bi ñëppay jokkoo ci feebar bi sax la ñu bari gën a xamee ne àdduna bi ndekete nit ñi par jour par heure la ñuy jokkoo parce que boo xoolee vol yi jóge Europe dem Chine vol yi jóge Chine dem Afrique léegi nag gis nañ ne feebar bi dem na ba tax dëkk yépp tëj seen frontières yi kenn ku nekk téye sa doom bi ñu ne bu kenn jàngee tëj lii activité économique yëpp ñu tëj ko kon loolu li nga xam ne loolu lay indi ci économique dafay tënk économique bi jokkalante bi jaayante bi day taxaw jokkalante bi jaayante bi su taxawee mais forcément dafay dal ci li nit ñi di am ci koom-koom day mujj wàññeeku léegi nag problème bi fan la nekkee problème bi fen la nekkee ci réew yi nga xam ne dañoo sous-développé comme réew yi Afrique yi wala réew bu mel ni Sénégal suñu demee ba conteneurs yi duggatuñ fi lekk bi duggatu fi li war a dugg ci biir dëkk bi duggatu fi nit ñi jëndanteetuñ jaayanteetuñ créer ay inflation prix yi suñ jógee nit ñi buñ demee ba mënatuñ ko jënd fay mujj créer ay tension sociale nit ñi di ñaxtu mën na créer sax nit ñi fippu di génn au lieu que ñuy tok seen kër yi légui dañuy obligé di génn mën na créer tamit lo xamné pourquoi pas ay tension sociale yo xamné day mujj ci ay jombe ay giraawaali donc économiquement crise bi dafay yàq économie gu àdduna bi day yàq économie gu Sénégal parce que dëkk yu melni Sénégal amuñu ay réserve alimentaire yu am doole suñ njombe amé ñu né kenn ku nekk na nga tok sa kër te terewul dinañ la mën a ravitailler pendant cinq six mois suñ économie yi dañoo faible. amaguñu doole joojee ba tax na nag tiitaange jot na ci jamono ji nga xamee ne nag moodu moodu yi sax nag faf yónnee tuñu ndax liggéeyuñu tey tamit nag la ñu mënoon mën a tuñu ko Boubacar Edouard Traoré ba tey ak Noabiaye. li moodu moodu yi di dugal ci xaalis boo xoolee Europe ñu ngi ci seen presque deux semaines jëm trois semaines boo xam ne liggéey amu fa donc moodu moodu yi xaalis boobu ñuy dugal ci dëkk bi tamit pratiquement day wàññeeku te bu wàññeeku dafay répercuter répercuter directement ci famille yi ñu koy yónnee donc day répercuter ci économie gu Sénégal également parce que bëri na li ñuy participer ci économie gu réew mi ci walu échange ci walu transfert d'argent donc lool tamit c'est très important li may wax ni parce que Modou modi daw daaw nañ presque plus de un milliard quatre cent millions ci at bi donc lool tam c'est très important ñu bayyi ci xel bu baaxa a baax xam ne trois semaines ngi ni ñom liggéey Modou Modou yi kon genn wal yëpp yonnetuñu donc loolu da fay répercuter leneen li nga xam da koy répercuter également moy devises hein les rentrées de devises les rentrées de service yooyu yëpp Sénégal defatu ci temps yi dara donc mooy loolu rek ñu tëj aéroport bi rek aéroport bi li muy dugal ci xaalis bu xam ne mu toll le port tamit la même chose donc wàllum yónnee ak jotum xaalis ña liggéeyee nag ne coronavirus bi tax na jamono ji daal seenu ko café safatul suukar dañuy teewlu bile doxantub noa bi ay transfert moom xam naa ne même ñi defut opération bi sax wala ñi yorul service yi sax ñoom war nañ xam ne doxatul comme ni bépp activité taxawee fii wala bépp activité ralenti activité boobu daf cee gën a ëpp parce que boo xoolee transaction comme son nom li ëpp day génne ci biti di ñëw te ci loolu aussi ci la bénéfice xawoon a tane ndax boo xoolee aussi buñ ñu leen waxee dëgg muy service yëpp bu mu tout ça bénéfice yu ndaw ndaw ndaw ndaw ñoo si nekk il faut nga am ay opération yu répété yu bëri ci journée mi ngi mel ne comme ñu naan dërëm dërëm rek tuuti na waaye fekkee taxawul yaa ngi ci am lu bëri bu yàgg yàggee mu jëriñ la waaye bu dee bénéfice bi bëriwul du pare bëgg soree te location yi xaaruñ courant bi xaarul dépense kër gi xaarul dafay métti mais loo ci mën a dégg daal activités yi wàññeeku na bu baax transaction yi moom mën nañ wax ne léegi presque dara bi di dal moom transaction yi mi neen dem normal nit ñaa ngi dem envoyé normal di jot normal mais depuis ba feebar bi yegsee ba léegi transaction yi dañoo wàññeeku bu baax a baax a baax instant bi dañu am ay heures yoo xam ne si la ñuy génn di envoyé léegi suñuy envoyé tamit day xaw a yéex te am ñoo xam ne tey seen suñu njaboot ñu ngi Sénégal ñoom ñooy joxe dépense seen dépense Europe lay jógee mais instant bi depuis ba maladie bi commencé sax mën nañu bañ a rey mais damay ragal ñun ñàkk dépense bi ñàkk dépense di ñëw ak ñàkk xaalis boobu noonu mën na dem ba indi ñu problème ñun ñii ñi nekk si Sénégal te instant bii nii feebar bi dem na ba tax ñoom mënatuñoo envoyé léegi nag fekkee ne dem na ba mënuñoo envoyé seen njaboot yi nekk fi ñoom ñooy gën a sonn ñooy sonn bu ñu xool côté boobu sax. opérateurs yi ñoom seen yoon nekku ci daan ngeen dégg toujours nit ñi di kaas nit ñi dem naan ba dañu arrêté yàggul am nañ fi problème parce que seen bénéfice dañ ko gënoon a wàññi sax ñoom que liy dem si ñoom gën a bëri nit ñi bi nee ba amuñ ci dara te aussi protégé wuñ la tey boo defoon erreur si sa transaction yaa koy wéetee sa bopp yaay dem toppaatal ko sa bopp arrêté sa liggéey topp ci mën ko jot ñoom duñ la remboursé ne nit koy def mais amuñ ci benn sécurité liggéey la boo xam ko di ko def bénéfice yi da koy gën a ñàkk koo xam ne daan la toppatoo kon bu demee ba affaire tollu fii moom boppam lay tal ay bénéfice la muy xool bu yokkut mën a taxaw foofu bañ a wàññeeku waaye duñu taxaw ci benn côté jaajëfal ko bu baax a baax moom noi bi yaay mataataan yooyu le kàddu ndem nag ña nga ca wàllum koom ca la ñuy des matukaay yi nguur gi jël nag daa wàcc ba ci diiwaan yi ndax nag ñi yore wàllum jënd mekk njaay yi ci région bi ay bés yu nekk rek daañu wàcc ci marché yi xool tolluwaay bi ak tamit wàllum njëg gi Seydou Nourou Baro mooy chef de service régional bi ñu dénk wàllum commerce fii ci Kaolack

loolu moom ñu suivre semaine après semaine fii ak a priori li fi nekk dina couvrir lépp ñu soxla wante ñetti weer yi pandémie bi trouvé une si ay saafara mën indi ay jafe-jafe ci approvisionnement marché am fi usine compagnie sucrière qui ngi produire lu bëri ci sucre te fi stock bi nga xam 6 mois Sénégal du soxla ak sucre am nañ fi tamit ay usine yu bëri yi farine te farine boobu mooy defar am nañ ay usine yu bëri yi defar tomate loolu du ñu am ay loolee duñ ca am jafe-jafe waaye nag liy ñuul ci soow mi daal mooy ne maar day taali bu mbas mi jeexul fi lekk ñeenti weer daanu am ay tolof-tolof ci yenn ci ñam yi nga xamee ne rek réew mi da koy jéggaani Seydou Nourou Bero ba tey ak noix bi ay lenn moo si xaw ñuul mooy dañ nekk ci période bi nga xam ne am feebar bi ñu tuddee coronavirus xam ne dafa ñu bëri mu waral sax gouvernement du Sénégal jël ay mesures de restriction te noonu la ko ay partenaires Sénégal yu bëri defee ci àdduna yëpp te Sénégal doon dafa ñoom comme la Chine comme la France ay yeneen ak li xaw a euh, indi inquiétude rek Sénégal lu bëri dañuy lekk ñu ngi koy jéegaane bitim réew naam Sénégal amna yenn produits yi nga xamné fi lañ koy bayé wala fi lañ koy défaré boobu du am benn menace quoi qu'on puisse dire am fi ceeb bi nga xamné ci du de qualité bi ñu bayé au niveau de la vallée quantité ñu ngi yox at bu nekk donte du mën doy lépp la Sénégal su soxlo mais amna produit bari yi nga xamné tamit dañ koy djégané bitim réew lu melni ni lu melni diwlin lu bari mi ngi ko sous région bi ak les pays asiatiques des produits

xibaaru bitim réew yi dañ koy dooree ca réew mii di Guinée Conakry Guinée Conakry nag ay élection lañ fa amaloon ni ki dimanche gi jëm ci li nga xam ne moo di tabbu député waaye tamit amal ab coppite jëmale ko ci constitution bi nga xam ne namm nañ ko modifié si lu jëm ci référendum boobu nga xam ne proposé na ko moom Alpha Condé njiitalu réew ma wote yooyu nag amoon na ay njeexital yu métti métti jëmale ko ci askan wi ndax bari woon na lool ay violence yu ñu nemmeekoon ci yenn ci gox yi rawatina ca capitale ba mu doonoon lu métti métti ay opposant nag ak yenn ñi nga xam ne ñoo bokk sa société civile ba soxna Ngoné daal di naxarlu bu baax a baax doxalin bi nga xam ne Alpha Condé na mën na ko amalaat euh, jëmale ko ca réew ma ngir rek bëgg ba fexewaat euh, toogaat foofule ca réew ma di Guinée Conakry fàttali na rek ne Alpha Condé toogoon na ca réew ma ci atum 2010 ñu tabaatoon ko ci atum 2015 ba nu mu bëggee amalaat beneen coppite ci constitution bi ngir amaat ca réew ma beneen ñetteelu mandat. xabaar yi bitim réew. ca Burundi la ñuy jubali ak xibaaru bitim réew yi wax si ñi nga xam ne daal ñoo di jegeñaale yi nga xam ne bokk nañ ci kuréel gi ñuy wax Zebia nga xam ne ñëpp si waat nañ foofule ca réew ma mu jur njàqare nag ca askan wa rawatina si kuréel gi ñuy wax Human Rights Watch di sàmm ak ak yelefu doomu aadama ñoom fidèle Zebia yooyu nag seen lim mu ngi toll ci nekk juróom-benn téeméer gannaaw bi nga xam ne sax gouvernement bu Congo daxoon na leen génne leen simit ci seen dëkk boobule ba jamono ji nga xam ne ñëpp si nañ si seen dëkk bi di Burundi mu njaaxare ci réew ma. xabaar yi bitim xibaaru bitim réew yi soxna ngone dañ koy jeexale ak feebar bi ñuy wax euh, coronavirus coronavirus nag sa Italie jamono ji daal médecin ya lu ñuy def moo di tànn kan ak kan lañ mën a faj jamono ji ndax nit ñu feebar dafa bëri lool ba jaaxal leen jamono ji bu ñu sukkandiko ci wéy kër docteur yi nag jamono ji daal hôpitaux yi dañoo fees dell ba jaaxal ñi nga xam ne ñoo di médecin ya lu nu mel tamit soxna ngone moo jaaxal daanaka àdduna wërngal këpp ndax euh, baat bi nga xam ne moom lañ doon sàkku ci askan wi maanaam des leen si seen biin kër jamono ji ñu bëri ci àdduna bi daanaka respecté wuñ ko rawatina boo demee ca Bolivie na ko noonu réew mii tamit di France Angleterre Roumanie ba ci Iran dëkk yooyu yëpp nag amoon jafe-jafe ngir mën a fexe daal ba nit ñi des seen dëkk ya rawatina tamit dëkk bi ñuy wax États-Unis nga xam ne feebar bi fës na fa lool lëmbee àdduna wërngal këpp. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew yi jeex na soxna Ngoone ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi. خبر bàkk baa nga jibee ci stade Lamine Koura euh, Guèye Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu noonu ne Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu ma ko auditeurs yi ñu sóobu ci xibaar bu tàggat yaram yi dañu koy doore ak Covid 19 njiiti confédération africaine bu football nag di Ahmad Ahmad ginnaaw bi mu jaajëfalee yenn ci légende yi ak personnalité yi nekk ci Afrique moom it di Ahmad Ahmad nag génn nag mi ngi ko jëmale ci crise sanitaire bi nga xamante ni dafa taxaw ni la lépp loo xamante ni tàggat yaram la ci àdduna Ahmad Ahmad la ñuy déglu été éprouvant pour l'Afrique et le monde. Mangi ngi nuyu ñëpp di sant ñep ba si nak metti na trop ci Afrique ci aduna bala bi di coronavirus jaxase na lépp rawatina football bi ci Afrique mom mi ngi gëna law jafé jafé yi deug la CAF moy amal xew-xew bo xamante ñep ñëpp a koy bokk du football waaye xam ngeen ni mbiru CAF yamul fofu rek dañu dimbali Afrique ci suqaliku di xeex musiba yu mel nii saa yu dalee sunu kaw jël nañu nag ay ndogal wàññii li nga xamante ni moom mooy risque de propagation bi nga xamante ne virus bi da ko gaaw a def jël nañu sax beneen ndogal mooy personnel bi nekk ci biir confédération africaine bu football dañ leen wax ñu toog seen kër liggéey foofu ba weeru mars bi teeru ñu xool fan la wànne di mujjee ay gëtëm balaa bi nag di Covid 19 day des ci taarix waaye fexe ba nu ñu ko daanee moo ëpp solo ñu bari nag ci seen bakkan njaboot maa ngi ñaan daal Afrique def ci xeex bi def ci lu am solo am ci taxawaay taxawaay bu mat sëkk ci geneen wet ga tamit maa ngi jaajëfal légende yi personnalité yi nga xamante ni ñoo nekk ci football africain ci seen taxawaay ci li nga xamante ni moom mooy coronavirus bi covid 19 ba léegi ki fi ndekkoon président bu Real Madrid di Lorenzo Sanji diggante 1995 ba atuma 2000 moom nag ñàkk na bakkanam ci ginnaaw bi nga xamante ni feebar bi di coronavirus daf ko tëraloon moom Lorenzo nag bi muy génn àdduna am na 76 ans ñu fàttali leen sax am na ñaari ligue Champion champions yoo xamante ni jot na gagné ci mandaam bi nga xamante ni nekk na ko président Real ci diggante atum 1998 ak atum 2000 ginnaaw Daniel à ak Blaise matudi, Kidi di Paulo Dibali nag moom mooy ñetteelu joueur bi nga xamante ni nekk ci Juventus bu Turin bi nga xamante ni moom feebar bi di coronavirus daf ko laal moom sax moo ñu ko xamal ci twitteram nee na sax du moom kese ndax ki di soxnaam moom dañ ko contrôlé mu positif ci li nga xamante ni moom virus bi. AC Milan ñoom dëggal nañu tamit ne seen directeur sportif di Paolo Maldini moom it dañ ko contrôlé positif ci Covid 19 bi bokk ci Daniel Maldini di attaquant et que xale yi nag moom it dañu ko contrôlé mu positif ci li nga Covid 19. ba léegi dañuy des ci coronavirus fondation Gorgui sidien Dieng moom amalna amal na bu am solo ci week-end gii ñu génn bokk na ci ay kits de protection jébbal ko personnel médical bi ay blouses jetables ay masques de protection ak ay produits yoo xamante ni dafa jëm ci xeex lii di coronavirus. fédération sénégalaise bu football moom nag ginnaaw fukki millions yi mu joxe woon toftal na ci yeneen juróom-ñetti millions nag fu mu toll yóbbu na ko ci koppar yi mu toll ci fukki millions ak juróom-ñetti yu ñu joxe jaarale ko ci membre comité exécutif bu fédération bi ci ligue régionale yi ligue football amateur yi ak membre yi nga xamante ni ñoo ko ci groupe sunu foot local. Mangok Ngoné Ndiaye reen ginnaaw bu ñu la ñaanalee kenn daa yow jàmm lii moo gënoon a fës ci xibaaru tàggat jaram yi jaa ngeen ci kaay yi yéenekaay yi L'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin Kër Adèle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 virus gi allah vox populi mo ñu ko xamal lu tollok junney sénégalais ña ngay xol seen wir gi yaram yene kay bi na kon nak fim mu ni carte gi jaxasoo na ayaw setal ñaar fukki doomu adama ci benn weekend manam ñaari fan laas yene kay ne li ci graw moy fim tollu ni jangoro ji duggu na ci diwan ci sénégal ayaw setal diwanu dakaru corona diwanu jurbel tuba, mbas mu bon mang fa diiwaanu Mbuur Thiès jàngoro ju bon jànga fa diiwaanu Ndar xam na korona diiwaanu Ziguinchor mbas mu bon maa ngi fa critique yéen a kaay ne ma wax leen li ci gën a garaaw mooy léegi Sénégal am na ñu yore jàngoro ji te kenn xamut leen ñu ngi dox seen soxla di tasaaroo ci biir réew mi ba am na ñu ñu wàll ñoo xam ne docteur yi xamuñ ñan ñoo leen ko wàll yéen a bi ne hee ah yéen lii du jàmm de fi mu toll ñu nag jóg jot na xam nga bu njëkk ba dañ daan wax naan am na jàngoro ji diwoo ko ko wàll léegi nag xam nañu ko xam te xamul ñan ñoo ko wàll léegi ñooñu ña leen ko wàll ñoom ñu ngi biir dëkk bi di dox natt rek di wéy aay ba tax jëwriñ juñ dénk wàllu wér gi yaram Diouf Sarr ci la Soleil yéen a kaay nee na fi mu toll nii caaxaan faaxe mboolee matuwaay yu nguur gi jël ñëpp a koy respecté fi mu toll nii amatu maslaha de déedéet c'est fini intaha si du quotidien ne jàngoro ji ni muy lawe ngir dakkal ko ci réew mi xam nga fan lañ nar a jëm état d'urgence aa seet soldar ci tak der yi ñu ngi jël seen matuway l'observateur dëggal ko nako plan bi njiit Macky Sall tek ngir xex dakal wala te gi ci corona gi taxna Macky ak ñam andal ci palais ba ña ngay xalat jël dogal def ko wurfa manam waxtu ñu may ñu genn wala ba confinement total manam teju ci bir kër yi kenn dotul genn amut heure bi ak heure ba ba tax tay ji ci altine ji njiit Macky Sall dana wax ak Sénégalais yi def déclaration l'évidence yéen kay nako amut lu muy xaar ak a xalaat fañ jëm ñun Sénégal moy teju ci kër yi baña genn vox populi nako ko li nga wax nonu su amee dana garaaw de te dana métti ci sénégalais yi aa yaaw seet tal suñu réew mii ñi fi am salaire di fayeku weer matuñ fan fanweer de ci téeméer boo jël ñi ëpp doole ci réew mi dañuy xëy lijjanti dépense léegi bu buñ tëjoo ci kër yi léegi ñooñu fan la ñuy lekkee ñun bokkuñu tubaab yi de nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy jàngoro ji ni muy wàllee nii fa gaaw te garaaw xam nañu ko am te ñu ci réew mi kenn xamul leen léegi buñ tëjuwut suñ kër yi fay gën a wasaaroo rek les éco yéen a kaay ne pexe moo amut libération ne kon nag sénégalais yi toog leen seen kër yi tëju leen enquête yéen a kaay feelu ko na toog leen ay waay sénégalais sénégalais yi tëju leen seen kër yi restez chez vous libération nga xam na ay fajkat yu nekk ca benn hôpital Thiès ndeysaan wàll nañ leen ko am na tamit benn waay bu am jàngoro ji ci benn biis oto lañ ko jàppee ca diwaanu Fatick am na tamit beneen waay buñ jàppoon mu am jàngoro ji fa mujj daw dem Pikine dem ca seen kër pare dem ca jàkka ja julli l'observateur na ko ma yokkal la ci moom moomu ñu jàppoon te mu nekkoon caserne Samba Jéere Jàllo bi mu dawee dafa bëggoon a luyee benn kaar ngir mu ko Matam Bakel far ñu jàpp ko foog nga ne loolu jàmm yow yaa ngi yor jàngoro ji soo seen kër wàll ko dem wàll leen jàngoro ji fa garaaw de mi ngi rey Dakar Times mu fay rey nii pexe xamatut nañ tëju ci yi bañ a génnati mi ngi xalaat dana jël dogal bi am déet waaye sénégalais yu bëri fi mu toll nii ñoom tëj neen seen bopp seen kër yi ndax dee kenn ko bëggut enquête yéen ne ku toog sa kër daal moom mën nga cee mucc direct news ne man ki ma jaaxal mooy bun Abdallah Jonn moom mu haayee bu kenn julli jumaa jàppalu ñaari imam Dakar ba pare ëlbatiku dem Touba dem julli jumaa yéen a kaay bi ne waaye yéen waaruwu leen ci digle sangaayu te sangu amat suma waare ci Sud Quotidien na wax ji bu leen ko raay ñeme leen ko fi mu toll ni moo war a jël matuwaayam dogal yu ñu jël tere ne buñ dajaloo képp ku ko mën a def yoon fa war a dal sa kaw bu laajee sax ñu jàppale tëj la fukki atu kaso yenn sénégalais yu dëgër bopp yi wala ñàkk teggi na yar nara lor seen bopp loraara ñeneen loolu jaaduwut ayaw seetal Italie soo gisee lafa fa dee fi mu toll ni moo ëpp sax ña dee Chine mooy ne ñàkk yar la France fañ ko doon caaxaanee ba tey ëpp na leen doole ñun Sénégal nag lay France ak sax du ñun ndax suñ kër docteur yi fa ñoo feebaroon booba manque ay jumtuwaay ak yu kenn xamut jàngoro ji xaju si ñun de baax na laas yéen a kaay na ngir xeex jàngoro ji nag njiitëram Macky sàll boole na ci sax opposition bi ku jégi suba ci talaata ji Macky dana dalal Idrissa Seck Ousmane Sonko Khalifa sàll ca pale ba lañ nar a dem waxtaan ak moom Cheikh Bamba Dièye ak Lamine Diallo ñoom ña ngay am xel ñaar dañuy dem ak du dem ma dem ci l'évidence yéen a kaay fekk fa docteur Macoumba Diouf meeru Latmingué dimbale nag askanu commune ba ci xeex jàngoro ji rawatina nag étudiant ya nekk Ndakaaru te dëkk Latmingué ñaari bis la leen utal altine bële delloo ji leen seen dëkk dëkk dëkk ba ñuy wax Vélingara nag ca diwaanu Kolda benn waay bu xam fanweeri at ak lu topp moom lañu fekk mu faatu ñàkk bakkanam ba commencé yàqu allah l'évidence yéen a kaay ñu ko xamal ca quartier bu ñuy wax Saara Yoba tribune yéen a kaay moom di ñu xamal ne taskatu xibaaru Sénégal yi ñu ngi ci naqar ak tiis rawatina waa des médias hayaw seetal journaliste ba ñuy wax Mamadou Ndiaye Doss bu Sen TV moo génn àdduna niki démb ci dimanche ji allah ginnaaw jàngoro ju ko tëraloon yéene kaay bi ne nit ku baax dem na journaliste bu mag wàcc na liggéey ma nga dooree woon ca oxygène jaar na wal fajiri mujjee seen TV ba tax yéene kaay bi na njaay dem na ba faw wéetal na fans yi ci turu directeur rajo Alfayda ñu ngi koy jaale di ko ñaanal yàlla xare ko aljana te yéexe ñu lii ci ay kàddoom la woon doyen laa ci métier bi et puis je fais partie des conseillers donc am na loo nga xamante ni xam naa ko ci alhamdulilahi rabil alamin maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax Auchan leen di jaay ay ginaar yu baax a ay neen ay poussin aliment volaille ak aliment bétail ripaas bu baax bi la leen wax ak place yu bari nekk ci téléphone 77 322 52 18 ñoo leen doon may li ci yéene kaay li ci yéene kaay yi Choukran aladi euh, Oumar tey ji nag la ci seen biir émission tomb bés bi mooy coronavirus bi tàmbalee am ci koomu réew mi ak itamit rek nees def lay gannaaw service euh, commercial mbokk yi jaajëfal leen bu baax baax ci déglu gi waaye tamit nag cant ak ngërëm ñel na xaaji libaas mbay mi féete woon ci wàllum xarale gi ñaanal leen mucc ak mucc lee jaami biir ak biti tawfiix ak taysiir jàngeen jëfati le journal Ngoné Ndiaye Reine